jërëjëf mbokk yi salaamaaleykum sa àdduna salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum mbokk yi safoo seen émission boobu fàqat ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax nuyu réew mi nuyu àdduna waaye tamit di jéggalu mbokk yi ci tardement bi am nañu tardement mais ñoo ngi jéggalu bu baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen a ngi toog seen kër di seen émission boobu fàqat ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu Sénégal di nuyu àdduna di nuyu diaspora bi waaye tamit di nuyu ñi nga xam ñoom laa bokkal plateau yëpp mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di ñaan suñu borom def jàmm ci réew mi def jàmm ci àdduna bi ñoo ngi nuyu tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo ngi toog seen kër di seetaan leeral tv leeral point net ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ñaanal suñu borom defal leen jàmm mbokk yi noonu la ñuy demee di nuyu ñi nga xam ne ñoom ñoon tëdd ci lalu yi di leen bu baax a baax leen ñaanal suñu borom fëgg seen bopp ba ñu mën dellu si njaboot ji ñoo ngi leen koy nuyu bu baax a baax di ñaanal suñu borom defal leen jàmm maladie waaye tamit defal jàmm ñi nga xam ne ñoom ñooy faj maladie mbokk yi noonu la ñuy demee tamit continuer dugg fi nga xam si ni moom mooy ci campénal bi kaso bi beeg fu ne rëbës ñoo ngi leen nuyu du nuyu waa rëbës yëpp fàtt bàyyiwuñu kenn di leen nuyu chambre 11 chambre 10 chambre 4 chambre 3 ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ñaanal suñu borom defal leen jàmm chef de yi nekk foofu yërmande ñoo ngi leen di béggee bu a baax suñuy mbokk leen di leen ñaanal suñu defal leen jàmm ba ñu mën a dellu seen i njaboot ngi nuyu mbokk di nuyu diaspora bi di nuyu sumay xarit yi nga xam ne ñoo ñoo nekk si diaspora bi di leen ñaanal suñu borom defal leen jàmm Adama Sita maa ngi lay nuyu Abdoul Sow maa ngi lay nuyu suma xarit ah Dumba yaa Senghor maa ngi lay nuyu di leen ñaan ngeen dal si jàmm Abdou Seck yalmin bi maa ngi lay nuyu baax a baax di leen ñaan ngeen dal jàmm suñu borom defal leen xéwal mucc bu bu soobee yàlla maa ngi leen di ñaanal bu baax a baax di leen mbokk yi ku ne xam ne les grands réalisateurs moom moo teg si plateau muy Aline Badara Sakho ah ma koy nuyu bu baax a baax di ko ñaanal suñu borom defal ko jàmm muy xale bu nangoo liggéey gëm boppam ah jàpp ci liggéey baax a baax maa ngi lay nuyu baax a baax la Diop moom laa toogal ci plateau bi ku ne xam la Diop su ma digganteeg moom Lat Diop moo toog nii Lamp moo toog nii euh, Basirou Serigne Bas moo toog nii ah mais lii plateau bi dafa doy waar Lamp moo toog nii la ah, ah, Lat moo toog nii Bay Baylaat moo toog nii Sëñ fàll moo toog nii mais lii dafa doy waar ah tey dama leen di présenter plateau bu doy waar seen émission fàqat mbokk yi namoon nañ leen bu baax a baax gannaaw bi ñu leen wanalee combat bi ñu jógee bu yàggul dara muy diggante Modou ak Boy Niang gis ngeen lu ci xew yépp ñi félicité Modou Lo roi des arènes yaa mën yaa ëpp doole yaa gën a féete xale yaa dàq bëri yàlla la yàlla defal jàmm ndam li jig la Boy ñaa ñu lay ñaan sunu borom defal la jàmm yokk la may la gudd fan ak wér xale nga li sa kanam gis nañu ko te xam nañu ni nga mel ci làmb xam nañu euh, yar gi nga indi ci làmb di lay ñaanal sunu borom defal la jàmm waaye tamit di la encouragé bu baax a baax mbokk yi jërë ngeen jëf Lat Diop naa la. Fallou maa lay fay Fallou Bousso comme ni nga ko waxee di la siyaar màggal bu baax baax di la jox sa wàccuwaay di wax baati onze billahi min seytaan rajim di nuyu waa Sénégal di nuyu waa àdduna di képp ku nga xam ne yaa ngi suivre Leral TV Leral point net jàkkaarloog sa image di seetaan télé bu mag bi muy Leral TV. comme ni ko waxee fàllu comme temps bi dañoo njett xat na te am nañ tardement mais ñu ngi jégalu ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi toog di xaar émission bi di nuyu làmp mi toogal di nuyu Basiru tamit mi toogal comme ni nga ko waxee rek plateau bi daa ala daw mu nekk ñaari ndaanaan yoo xam ne seen i mbër ñu war a bëri la treize kii làmp mu ngi waree sam-sam ànd ak baaba jaxal wëndëng bi Basiru mu ngi nii war a waree médina Gueule Tapée Fann fépp nga xam ne Ndakaar moo xewle ànd ak Ibou Afia war ñëw le 13 janvier mu indi leen si bi ñu war a waxtaan lu neex Fallou di nuyu waa Sénégal di nuyu waa Diamaguène di nuyu waa Thiaroye waa Dakar ñëpp ñu ngi leen nuyu Touba Thiès képp ki nga xam ne yaa ngi suivre Leral TV Leral point net rek ñu ngi lay jox sa wàccuwaay. jërëjëf jërëjëf la Diop amaan mbégte bu baax a baax ci yow lamp bu baaba jaxal lamp bu samsam 3 làmp bu ala yooyu noonu jàpp Fass Mbaaw ah Farba ah eh, jàmbi réew ah naataange jàpp jàpp teen bi. yooyu maa ngi lay nuyu nuyu la mbokki Sénégal. waaw maa ngi nuyu àdduna di nuyu Sénégal. lamb sa caméra ngi nii de. di nuyu ñëpp. Mhm. waaw di nuyu senegal di woote di wooy maanaam waa senegal ñu ñaanal ñu jàppale ñu si bis bi ñu jëm si ndax bis bi suñu bis la luñ soxla la luñ bëgg la di nuyu Samsam 1 2 ba 3 di nuyu jàmbi réew Farba yaakaar teen bi naataange ak Samsam di wax nag ñëpp ñuy def génn jàppale mbër mi ndax xam ne Samsam moo wootee waaw di wax woo waa Samsam nag waaw di leen nuyu di leen bëgg nag di war malaan ñëpp waaw jërëjëf jërëjëf sëñ Bas kàddu yi rafet na yow ñu lay gërëm bu baax a baax ci teewaay bi kilifa gi sëñ Bas maa ngi lay nuyu borom Medina jàpp ale yooyu day ni daw rek amoo leen arrêté sëñ waaw yow sama nga mais sëñ Bas feeñ nga télé de maa ngi lay nuyu feeñ naa télé dama gëj a gis sa bopp ah. man seetu ah. tey dama ñëw ngeen war ma sama bopp ma kontaan barki sëñ Bamba. sa caméra ngi ne la ci angle bi. Lat maa ngi lay nuyu. delloo bëggee Lamb maa ngi lay nuyu. di ñaan ci réew mi yàlla na fi yàgg yàlla na fi jàmm yàgg. amiin di nuyu sama gars yu ma àndal Damboy Petit Youm Ra Gorokan maa ngi leen di nuyu Damboy maa ngi lay wax ni metti na waaye coono bànneex la jàppal bu dëgër maa ngi nuyu ñëpp wasalaam. jërë ngeen jëf mbokk yi gis ngeen tey plateau bi nu mu alaadaw mi gis nga euh, ñi nga xam ne si ñoom ñoo nekk ci làmb di dox ci diggante Baba Jaxal Ibu Afia seen i waa kër lañ invité làmb ku ne xam na ne moom moo dëkk ak Jaxal tey Baba Jaxal ñëwuñu Ibu Afia ñëwuñu mais seen ñaari waa kër la ñu teg mm. ku ne xam na ne bis boobu moo war a am samedi bii ñu dëgmal ah ñu suy gërëm euh, yaaram aar di ko ñaanal baakri sunu borom defal ko jàmm ci bis boobu nga xam ne sunu bis la di ngeen ko am en direct loolu moom bis boobu leeral da koy def direct loolu moom dañ koy def direct Sénégal gépp toog seetaan ñu loolu moom en tout cas daal coow li coow li muy bare bare bari Ibou Afia Baba Jaxal li ngeen doon wax boobu ba léegi nit ñi di la ngeen di làqatoo làmp yaa ngi nii Basiiroo ngi nii Fallu làqatu kañ amu si ki gis nañ ko ki làqatu bis bi bis bi ngeen jël baaba jaxal waaw ngeen jël baaba jaxal mi nga xam ne dafa toog ak mer ngeen jël baaba jaxal bi nga toog xam ne dafa toog waaw sam-sam yaakaar ko du xale boo xam si ne dañ ko war a bàyyi xel ngeen jël ko xale boobu ngeen jël lo bàyyi ngeen xale bi ngeen jël bu baax làmb moo ñu boole rek mais moom taxul ñu dugg si làmb ñun ki ñu yor ñun ba muy dugg si làmb projet la ñu duggee si làmb te si loolu la ñu focus lu ñuy jaar jàll la rek làmb moom wax rek ñun soxla ci àdduna ñoo ko a nekk ci làmb ndax ñun. kii mënu ma gën a soxla. ñun liñ si liñ jugee. kii mënu ma gën a soxla bor bor bor bu bor bu mat sëkk. mais ñi dañoo amee bor de. ñii waaye bor boobu noonu la ñuy fayal suñu bor. bor boobu noonu ñoo leen koy fay. ñoo ngi leen di xaar. ah sant yaakatul ma. samedi incha allah leen dugal ci Ibou Afé man moo ma yaa moo ma jaaxal. waaw Ibou Afé dafa bokk suñu yoon rek. lu ñu jàpp moo amul dañu jàpp loo amul da ngay wax wax bi li ngeen jàpp moo amul. Ibou Afé yoon waxal wax bi waxal wax bi da ngeen di jox seen bopp làmb ji non xool ko waxal ak moom fal yéen ñaar la de làmb ji ba ngeen ko jëlee da ngeen daw dem Maroc nekk fa di lekk ay macaroni ay pomme de terre di macca ay orange marocain ñëw fii andi fi seen état pule de serre boobu foog ne loolu mooy daan Ibou Ibou loolu daanu ko de eh, Ibou boo ko bëggee daan da ngay liggéey laa la wax kooku dafa ni panda kenn xamee wu ko wax jëf la moom Ibou mënul dara deful dara jour boobu day ñëw rek tëdd ñii seen secteur bi jour boobu day ñëw rek tëdd. seen secteur boobu da ngeen foog ni wax moo ubbi lamb daal la sekk ñun. da ngeen mu ñëw daal la sekk ak wax ubul lamb leneen. lamb jëf la wax ubul lamb daal yu affaire ñëw daal la sekk ñun. mais du yéen si am loolu waa Medina dinañ ko indi rek mu ñëw noonu daal daal la bis boobaa lépp ñoo koy def ay mboqam ñëpp teew bu ñëwee rek tëdd. le treize lépp ñoo koy def yow loolu nga jàpp dara da ngeen ñëw def baaba jaxal Ibu affaire boo leen tëjee si néeg saa bu ñu tijjee Ibu la ñuy fekk si kawam yow eh, nga ne buñ buñ ko sëriñ Bamba eh, mais kii yam na waa sam sam de buñ ko bindoon si nekk saa ñu tijjee laa la wax da ngay fekk Ibou si kaw Baba Jaxal Baba ñu si làmb ñun Baba Jaxal dugaluñu si làmb ñun projet la yor te si loolu la ñu lii nii dañ siy jaar nii nii nii rek moo tax ñu Ibu kenn mais mais Ibu Ibu Ibu Baba Jaxal génn na dem na fi Maroc. gis nga Baba Jaxal dem génn na fi dem na Maroc. mais gis nga état mais non non. <laughs> ay biir. doole bu bu sakkat bu bëri. mais kon da nga jàpp ne Baba Jaxal woowu. Baba Jaxal ñoom loolu. ñoom wax ubul làmb wax ubul làmb. loolu moo leen naf. yéen li ngeen waxoon si première face à face bi. première face à face bi li ngeen waxoon na ngeen ba na ko def. damay damay muy ñëw suuf seen tànk na ngeen seen yaram. ngeen taxaw sax jaay ngeen xool. baabu yow ko damm jël ko daan ko daan ko mais mais Basiru damm Basiru. la Ibu nañ waaw waaw Ibu Afia ay mbokkam lépp lu mu war a liggéey liggéey na ko lépp lu mu yaakaar ni moo ko war a may ndam entraîné nañ si liggéey nañ si bu baax te kii nekkul ñun moo ñu bàyyi ci làmb. yow Babou ah, lu ko yóbbu mën ñun xam nañ ko entraînement yóbbu ko fa kii day tax ay supporteram état bi lan ngeen wax dëgg état ban état pôle de service lii état la ah, du état kii état pôle de service kon yéen kon yéen mais Baba Diakhal kon li mu indi nii yéen kon yéen tiitalu leen Baba Diakhal xooluñu ko Ibou musul toog barki Serigne Bamba dañuy toog nit jël ay vidéo naan ko xoolal saa waay Ibou du xool Baba Jaxal bari nga ah, ne du ko xool ñemewu ko kooku bu ragalee dañ koy rey waaw yow da mais lamp mais lamp mais gis wax nga koy mais bu ñu tëjee barrière bi ba arbitre bi wàccee laa loo doon wax laa la wax doo doo ko wax gis bi wàccee loxoom la lay Baba Jaxal day wane fulla day wane jàmbaar. ah yow foofu fi la fekk baax. mais ñaari booy dul. aree la de fulla nga jaaxal la jóg. Eh, Baba Jaxal dañ ko tiimale micro mu ni le treize si lay wanee boppam ci làmp musu lay wane fan lay wane boppam Baba Jaxal moo war a góor góorgóorlu. parce que nee na mer la faral daal du Thiès laa la wax Baba Jaxal du Thiès ñun. est-ce que nekkul meru Baba Jaxal ci Ibou Afia la ko nar a yàq nag. ba bis ba. dina ko saa man dafa am lu lay yóbbante xam nga la naa lay yóbbante. atiwa waxtaan leen première si première signature bi bi mu nekkee Maroc ñuy def live vidéo dafa am wax bu mu wax. Ibou dafa ni yokkal maas bi. Mhm. mu ne ko su ma yokkee maas bi ñëw ndax di nga taxaw. est-ce que ndax dina samp jaaga. Ibou musul aneeral góor. ndax dina leer xeex dama ni la baaba bu suulee tàng yi ne nga yaram bi laa la wax. samp jaaga ak Ibou ñu dóor ko ba mu daw. ma ne Ba eh, eh, eh, ngeen ko wax mu samp jaaga mu samp Ba ñëwul lool Ba bu arrêté ñu ray kii moom mooy wax kii bu wéyee Ba bu jaxal Ba bu jaxal du ko wax lool. ma ginnaaw billahi ñu ray kii bu Ba bu jaxal Ba bu du ko wax loolu yow. Ibu day jël seen bopp yéen lay yéen lay jël seen bopp. Ah. mais la jóg ñaar lii yéen lay jël seen bopp. mais Ba Ba ñu ko xam nekk ak moom yar ko ba mu toll ni mu toll. kii bu tegee tànk jëm ginnaaw. mais double Thiès. double Thiès. Baba double Thiès la. double Thiès Baba tàngul samedi ngay comprendre. Baba tàngul. samedi boppam samedi. lépp Sénégal nee nañu. xam nga lan lañ si am instant bi nii. ci li mu jugee mën nañ leen bàyyi nag. ngeen di wax ñu bàyyi leen ak wax ji. mais samedi incha allah ma ne la samedi bu 17h jotee. samedi lépp la ñuy nangu tëj ko suñu loxo. samedi day yaatu ñu faam ba gën ndam li yóbbu ko. mais mais ma ñëw ma ñëw mais lan jóg mais lan jóg ma ñëw ma ñëw ma ñëw mais lan jóg. am na Baba Diakhal Bas Bas ma ñëw Bas. Baba Diakhal am na ku ñu dégganteel ci waa te ñu waa fii. Bas Bas sëñ Bas. da ngay wax li nga gëm. mais sëñ Bas ma ñëw sëñ Bas. ma li nga waxuñu ci foofu ci gaaw ci ma la jëm ma ñaan wala lamb ji kaw ci foofu ma la seere ma ci ñaan la seere tàngal do wax lu leer nañ la waaw nekkul fi dara baaw mu ci doole gu dëgër bu taxaw sul tànkam ne ko dara mo ngeen wara mu ne mu ci mu ma daan ko ibaafe bu la bëggee la ma avancé ne ko mu doole moo ëpp doole moo gën a ëpp doole fuuf moo gën a doon mais ma ñëw ma ñëw lamp lamp ma ñëw ba sëñ Bass ma ñëw mais am na lu may dégg am na lu may dégg ci diggante Baba Jaxal Ibou Afia dafa mel ne Baba Jaxal am na ku muy dégganteel ci waa kër Ibou Afia wala Ibou Afia am na ku muy dégganteel ci waa kër Baba Diakhal. am na information yi daw de ndax. am na information yi daw quoi boo xoolee ñoom ñaar am na am na lu ñuy sóorante am nañu am nañu ay link. am na am na ay link yu dox seen bu fekkee bu fekkee. Hmm. bu fekkee. fii lu ñu soxla bu fekkee. waaw déglu bu fekkee hmm. Baba Diakhal ki muy doxaan may nañ ma ko. am naa jabar nag am naa soxna mais may nañ ma ko. waaw musul baaw musul baaw Baba Diakhal fi muy jàppee. waaw ndege fan la jàppee fan dama siy bañ wax. day jàpp lay jàppee. fu muy jàppee wax nga am lay jàppee. yow ki la wax information la la jox. baaba nee naa la mooy li jënd ko de baaba jaxal jox. foo information lañ ko jox waaw baaba lay information lañ ko jox. parce que ñu ne baaba day teel foo ñu ne baaba xam nga Sénégal a ñuy seetaan adduna gi seetaan ñu ngi nuyu ñëpp nag ah waaye maa ngi nuyu xale yi xalil moo ma jox dàll yi borom borom borom borom borom kolobaan see doomu nday sekk moom jox mais link bi dox si diggante Baba Jaxal Ibou Afia xamante bi ni ngeen xamante seen biir. lan la bas loolu mënut a ñàkk nag million la. Mhm. waaw link yi du ñàkk. non yéen a ko jàppale million. Oh, Ibou dundul million. Ibou dundul million kooku amul million million million lii nii seetaanu ko. dégg ma la dafa may liggéey ba mu liggéey muy nelaw man dafa may liggéey maa ngi bàyyi muy nelaw loolu la xam. waaw waaw mais man man man Baba Diakhal Baba Diakhal mais Baba Diakhal bu amee sama numéro Baba Diakhal bu amee sama numéro moom dina ma woo Ibou Afia bu amee sama numéro dina ma woo. parce que bu leen yamul woon ñu dëkk fii dem Maroc di lekk ay mandarine ak ay macaroni andi fi état de déedéet ba jaxal du dem ba Maroc di lekk ay mandarine de ay ma moo def nii yaram bi baaw dafa liggéey loolu bu bëri xam nga aéroport bu jógee xam nga fon ñëw andi ak pirogue bu fës boobu noonu kaye kaye kama foofu ma ne xoolal kii dem xaw ma ay doom la naan xaw mu ñëw andi fi ay. lex yéen mais mais Bas. waaw dafa liggéey doole Bas. Ibu ku ko xool di nga xam ne kii jëlul daal li ma la wax waaw waaw laaj jot ñëw. maintenant waajee combat le treize. maintenant maintenant bul ne ko fas Colobane Gueule Tapée Gibraltar hmm. Rëbës Grand Dakar ñëpp ngi waaj combat bi. di wax ni wàcc te ku xam Ibou Afia xam nga Ibou Afia dafa am mbooloo. waaw day mobiliser dafay mobiliser est lii la andi si ñëpp dem seeti Awa Ndiaye rue 27 mu jox leen ko ñu dem stade taaral ko stade bi yëpp vert incha allah ñu duma ko daan ko. baaba jaxal lamp lamp lamp bàyyi ma ñëw ci lamp la jóg tuuti lamp da ngeen di bëreeg Ibou Afia ngeen jóge ci combat ngeen jóge ci ay combat yoo xam ne combat yu metti lan moo tax. bi ngeen jógee ci combat yooyu Baba Jaxal am am bor bu mu war a fay ay waa këram am bor bu mu war a fay jàmm gën si kàmbaaw ale yooyu mais lu tax ngeen ngeen bàyyi fi ñëpp taamu Ibou Afia. Ibou mooy dernier coup bu am ñi nga xam ne dañoo jëloon pour ñu bëre ñoo dem daw. Hmm. mu jël risque ne moom mooy ñëw dëggal boppam ñëw jël. baaba nag ma ñëw ma ba muy dem du Ibou Afia moo tax muy dem. muy voyage entraînement pour Ibou Afia pour ñeneen ñi si kanam nag pour indi ñu roi des arènes sam-sam Hmm. moo tax mu dem mais du ibu baaba xoolul sax ibu te bu samdee di nga xam ne moom xoolul ibu hmm. ko xam baaba jaxal xam ko ci mobilisation loolu moom ku ko xam xam ko ci loolu mais baaba jaxal actuellement nii ak combat yi jóge ak problème yi baaba jaxal est-ce que mbooloo mi ñoo ngi waaj fallu xol du bëgg di bay hmm. baaba ñu ko jàppoon démb ñu ko jàpp tey te suba open press boo ñëwee di xam ne waa sam jàpp nañ ko waa naataange jàpp nañ ko waa jàmm gën waa sikaam mbaaw ba waa kër masaaru jàpp nañ ko yëmbal baaba kenn bañ ñëpp ko bëgg moom bu jógee dañuy jug baaba moo ñuy dugloo fu ne moo ñuy def loolu ne ndax moom moo ñu ko ji baaba amul kenn kuy dund sam-sam hmm. ku ne baaba mos na laa wax loolu lu la metti hmm. wala lu bon hmm. baaba ñëpp yaa salaam maire yeeg paa bu jógee entraînement mun naa def deux heures de temps su yoon xale yeeg maire yi ak paa yi billaahi ku de dëkkaytee du xam mais est ce que xam ngeen ki ngeen di bëree adversaire bi ngeen di bëree mën na dégg mën a ibu affaire xam nañ ko ci naka mbër la entraîné na moom na waaj nag ànd ak ay mbokkam ñëw def lu muy def yëpp bu ñëwee baaw jàpp ko daan. lamb mën naa la yóbbante. maa lay déglu boobu léegi sa yóbbante. ma ne la. baabaag léegi ndax dina suul tànk yi ne nga yaram bi Samba Diaga ak Ibou. loolu jëmmam la loolu moom Baaba lamb ji day rocc ruugi. te booy bi dina ko duma de. déggoo ma ne lamb ji ruugi. la wax. Baaba dee ci lamb ji. day leen bëggee benn bëgg nañ ko fukk. ñun ñoo a. laa leen si bañul duñ ko si bañ. incha allah Ibou day xeex ak moom. xeex Ibou dina ko duma ba pare soog ko daan. xeex nan taxaw. Ibou amul xeex bu mu baax nee na amul xeex. mais Ibou baax nee na amul xeex. nan taxaw sama baax xeex ak booy li mu ci jógee nii. mais Ibou affaire sax booy bi duma ko. booy bu xeex yóbbu ko aar ba mu ñëwaat ko. baaba du xeex. ak Ibou day xeex dóor ko dóor yi yéen xam ngeen ni baaba du xeex. xeex dëgg ma la xeex bu tar la ko indi. baaba. dina dina yow saa waay na ma la saa nga ma yaa ngi wax saa waay donc sànq ma ne yaa ngi wax booy wax li ngay wax da nga koy gëm. lu leer ko. lu dëgër këcc lu leer naaj. tënoo ko fenn li ngay wax ndax baaba waxu la lii waxalal baaba lu mu la waxal. baaba ñëwul xeex ak booy bu xeex ak booy bi booy bi duma ko. dina xeex ak moom duma ko. bu bëree mu jàpp ko daan ko moo ko mun moo ko ëpp. le treize yàggatul yàlla na leen yàlla. baaba torof torof moo ko bëri ñëw dañoo tardé lu mu gën a gudd. surtout teel a ñëwee sànn nag. teel a ñëwee sànn non saa waay ñii nii lu yéex si ñoom la yéexee. yéen si yéen la ñun ñun dañuy dégg rek dox ñoom. lu yéex si ñoom la yéexee. mais yéen ñaan la kay instant bi yéen ñaan la. jërëjëf dina mobiliser incha allah dina bàq mu neex dina bëree daan nit ñi incha allah su neexee yàlla. arène nationale jaxal moo ko moom. moo ko yàq def moo njëkk a yàq saisi de. nee na moo moo waxee ah, yàq moo moo ko yàq sa yàq loolu violence la ibu ñu ànd ak moom dañu correct nekkuñu si loolu. ñun ñuy bëri ndam yàlla moo koy maye. dañuy bëre bu ñu yàlla maye ndam dañuy zible dem ñibbi bu ñu yàlla mayul ndam dañuy. Ibou Afia Baba Diakhal mos nañoo bokk journée de. mos nañoo bokk journée. mos mhm, nañoo bokk journée lamb bi si ñoom la yéexee woon ñun Baba Diakhal yàgg nañ bëgg bëre ak moom moom muy daw avance bi ay promoteurs yàgg nañ ñu seet. Baba Diakhal mais Baba Diakhal moo doon daw avance bi nga def Baba Diakhal yàgg delloo avance bi ñun yàgg nañ ñëw waxtaan ak ñun. Baba musul daw avance bi mais chaque jour lamb ji doon tàmbee si moom. avance mbër musul ñëw baax na mais tey dëgg na boobu seen combat taxaw ñoom ñoo di ko xaar dugg fu ne pour am ko tey seen combat fu ibu liggéey ba yegg fu mu waree yegg làmb boole yow yow bi nii yow si ñetti defet nga jógee ibu war a may sens ibu ko may sens ibu war a may sens yow instant bi mais est-ce loolu tamit du risque si ibu en fie ñun est du risque tamit ci ibu en fie baa nga jàpp bi ah, ko est-ce que du hmm. loolu lañu focus baa nga jaxal dugaluñ si làmb ñun si lu ñu nekk nii yoon la Baba Diakhal dafa bokk si yoon bi làmb moo ñu boole. Mhm. dañuy jaar si moom jàll dem seeti leneen. fu ñu teg si bët du si du moom. jaar du moom. doo mbaa doo ko def xalaa ma nii. Eh? ñun xooluñu Baba Diakhal ñun côté boobu noonu ay Siteu la ñuy xool foofu noonu genre business yooyu. waaw. Eh, eh, xaaral ba génn si combat bi. Ibrahima daa toog ne moom mooy barrage. waaw ah. day damb barrage bi jàll. nga ne barrage ban boobu ba léegi maa ngi koy dégg mu naan day damm Ibou Afia nee na ko waaw kan lay fomp Ibou Afia lay fomp mu set tëmbal na leen yéen da ngeen war a yem yéen seen tëmbal da ngeen foog ni wax moo ub làmba wax ubul làmba waaw mais làmb làmb làmb seen verre yi seen verre yi nag ngeen fekkee foofu jooy. lii ko solee. Eh. Eh. booy jooy nii da ngay mën a dugal mouchoir nii foofu. veille pour li ngay doo ko gis la. waaye dama su ma takkee su ma lay xool doo ko lu may ko. Eh. ñëw doo leen ñëw. doo leen ñëw doo leen ñëw. sa jaxal am sa wëndëg. ah, ah mbëndëg nga lay daan wëndëg la wax. billaay wëndëg nga lay daan. yow yaa ngi waatee ah wëndëg bi de mer na moom. yaa ngi waatee mais baa ma yaa ngi waatee mer na la wax nga jël séminaire bu ñu génnee. yaa ngi waat naa la wax yaa ngi waat non non non. mais VAR am na de. yaa ngi waat. Fallou te tamit Bayar yi di waat combat nga combat bi dama ci métti mais ko. loolu nga bàyyi waat di continuer sa waat yéen li ngeen di wax yéen seen wàllu bopp gëmu leen ko. waaye man su ma ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma ñëw waaw ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma ñëw man xam nga xam nga xam nga damaa bëgg damaa bëgg tamit ñu delluwaat xam si ginnaaw ne am na ñu nga xam ne ñoo ngi toog du ñu seetaan xëy na euh, débat bi wax dëgg yàlla posé na te neex na mm-hmm. mais tamit nañu bàyyi ñi nga xam ne ñoo ngi toog seen kër di ñu seetaan ñiy gërëm mbokk yi ñëpp ñi nga xam ne yéen ngi toog seen kër di ñu seetaan ñi leen di ñaanal suñu borom defal leen jàmm leeral TV leeral point net waaye tamit di ñëw ci eh, li nga xam ne moom moo amoon ci jàmm gën si kàmbaaw démb. muy set setal armée yi loolu ci lañ waroon a njëkkee waaye tamit ñoo ngi ciy jéggalu set setal armée yi gis nañ ci eh, député maire. Eh, Cheikh Aliou Badara Bey gis nañ fi député maire Moussa Fall waaye tamit gis nañ fa ki nga xam ne mooy Abdou Samad juuf ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax bu doomu Paasaar Paasaar sunu kilifa sunu xarit sunu lépp. ñu ngi lay ñaanal suñu borom defal la jàmm paasaar jërëjëf liggéey bi gis nañu ko kontaan nañu Abdou Samad jërëjëf mais Lat Diop jàmm gën si kaw mbaa soxla na ay almeer waaw Fallou comme ni nga ko waxee. ñu ñu ñu ñu briefing si tuuti rek gis naa image yi démb si internet bi ñu gis armeeru jàmm gën yi nu mel. Mhm. dafa bari ñax. ba mhm. pare dafa xat dafa fees pour nga denc nit il faut nga xuus feneen doo ko mën a tegaat. Mhm. te loolu baaxul ndax bu yàggee bu doon armeel yaatu na suñu naan mais dafa xat ba pare dafa am ndox. dafa taar Mm-hmm. tey nab bi dafa yéeg waaw nab bi day day mm-hmm. a am ndox mm-hmm. day teel a saxaar boo xoolee benn côté bi rek la ñuy dencee beneen côté bi kenn dencee du ñu jàppale autorités yi nga xam ne ñu nekk biir Diamaguène surtout ki nga xam ne maire bi mu ngi fa di def jéego ñu ñaan ñu defalaat beneen armère boo xam ne mën nañ koo yaatal def ko parce que boo xoolee ci ginnaaw am na espace ñaar bi mu ngi foofu noonu buñ ko yaatalee rek mën nañu am beneen armeel bu gën a yaatu foofu noonu jërëjëf jërëjëf jàppale baax jërëjëf la Diop lamp jàmm gën si kaw mbaaw soxla na ay almeer yu bees waaw waaw mm-hmm. kooku kooku suma xol la Baye Sidi mm-hmm. waaw ndax xam nga rek njaam moom bu amee almeer dañ kaa war a am ndax almeer yooyu gis nañu chaque at dañ koy bay mm-hmm. te ndox mi ni mu fay ñëwee dafa bëri doole di ñaan nag autorités nekk foofu yëpp bu ñu mënee wutal fu ñu mun di dencee suñuy néew yi ndax ñun jaamu gën la ñam tey jii ku am néew fu nga ko war a a denc te foofu armée boobu rek moo fa nekk. waaw benn armée boobu kese la ñam. Mhm. tey gis nañ ñax yi fa nekk démb gis nañ fa génne lépp lu mu bëree. Mhm. waaw bëgg nag ñoom ñu jàppale ñu wutal ñu armée baax. jërëjëf jërëjëf Bas jàmm gën si Kamba dafa am ay problème mu yan kàddu nga ciy sànni. en loolu moom gars yi nañ si jël seen nañ si jël seen matuwaay quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. parce dee moom moo jiitu dund quoi. Mm-hmm. parce que tey nii suñu xoolee mën naa ne man fi ma dëkk sax ñetti week-end ngi nii xaw ma ñetti week-end ñu jàll nii ñun suñu cimetière yi bétuwaar dañ nekkoon di ko bay di ko defar. weekend bii di ñëw nii bëgg nañ nag ñëpp génn jàpp si ndax si lañ ko war a yeggali ñoo ngi woo ñëpp ñu ñëw jàpp si liggéey woo Medina gépp ñëpp ñu ñëw jàpp su liggéey bi ndax suñ bopp lañ ko defal mhm. suñ bopp lañ ko defal mhm. ñun ñoom ñoom ñu tëdd foofu noonu loolu rek lañ leen mënal mhm. ak ñaan waaw kon a jàmmagën ci gàmbaaw seen armeel yooyu noonu ñuy wax gars yi nañ leen taxaw bu baax defal leen lu ñu bëgg utal leen ay cimetière ñu xool nan lañ fay mën di jëncee jërëjëf jërëjëf mbokk yi loolu du ñàkk ñu boros ko ci émission fàqat ndax ku ne xam na ne jafe-jafe yi am fee bari na mënuñoo wax sax lépp waaye tamit di nuyu sama papa Euh, muy nuyu madame Sarr di nuyu waa kër gépp di leen ñaanal suñu borom defal leen jàmm euh, di nuyu diaspora bi tamit su xarit hmm. ñoo nekk si diaspora bi xëy na sax tey moom du ma du du ma tudd du ma du ma du ma leen tudd tey ñoom ñëpp ñëpp waaye en tout cas dama la bëgg a xamal daal yi ma sol taay xalil moo fi jaar borom kolobaan xalil borom kolobaan ma koy nuyu bu baax a baax di ko ñaanal sunu borom defal ko jàmm di nuyu Baye Fall yi nga xam ne fekk naa leen ci place bépp di ñaanal sunu borom defal leen jàmm mais làmp xam nga lu ma lu ma jaaxal ci Ibou Afia bëri ibu afiya dafa gaaw. ma ñëw ma ñëw bëri ibu afiya dafa gaaw ku ne xam na ne ibu afiya bu ne bu duggee ci làmb ji li muy dégagé gis nga ko mais Baba Jaxal est-ce que mu ngi mu ngi sóoraale ibu afiya bu baax a baax. Baba ngi liggéey entraînement bu gaaw. Baba Jaxal te ibu afiya dafa gaaw de. lu mu gën a gaaw gaaw fekk fa baax mu gën a gaaw baaba bu mu nekkee booy ba léegi moom bëreem amul arrêt boo demee ne ko xarala jëm. day day xare day. na waaj day xare ba dee am na bés. day ba de. xare ba leer laa la wax na waaj de. jaxal na waaj laa la wax. na waaj de xanaa de xanaa de. xanaa de. waaw mel na dafa am lu ñu leen dey si combat dafa am du ñu topp lu ñu gëmul. Hmm. ñun doomu Medina ñun noonu la ñu mel. ñun ci lépp loo ñu gis ñu siy dem dañ siy dem ba jeex ñun. noonu ñu gis dinaa am na ay am ñu fa ñu fa fa am sotti ñëpp. dañoo dañoo daanu. seen ngëm loolu du dara. lool du dara gis nga ku mayal sa bopp ku mayal sa bopp loo am santal yàlla. Mhm. ku doon may sa bopp ku doon may sa bopp loo bëgg rek ngay am. Mhm. tey jii nii amaana ñoom bu nekkoon ñoom ñooy may seen bopp sax duñ doon ay mbër. ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ mm-hmm. kenn wane wu si ñàkk fayda kenn wane wu si yaafus muy bébé jën ma koy nuyoo passage muy Cheikh Bouya caatu men Medina maa ngi koy nuyu di nuyu jën kayre mm-hmm. di leen wax ni làmb nii la nañ takkaat tànk nañ takkaat daal mais baaba jaxal bëreeg baaba jaxal bëreeg baaba jaxal wëndël bi est-ce que ci xeex bi bëreeg baaba jaxal ci congo bi bëreeg baaba jaxal mais amul baaba jaxal maa ko dàq xeex nga baaba jaxal maa ko dàq xeex Ibou Afia moo dàq xeex Baba Jaxal. Baba Jaxal maa ko dàq xeex. aller retour seetaan na la ay combat Baba Jaxal nga seetaan ay combat Ibou Afia nga xool ñaari xeetu xeex yi. Ibou Afia mosul dóor mu dem waaw da ngaa dóor yokk bakkan bi dam. Ibou moo ko dàq xeex. waaw waaw a. mu na. waaw loolu tamit loolu combat boobu neexoon na. bëri na a da ngaa dóor yokk bëri na kan. saa waay dama ni la. Ah, dëgër moo ko gën guy matul këriñ caatu piol suñu am di jàmm la maa ngi koy nuyu au passage suñu combat moo gënoon metti lii mhm. suñu combat ak caatu piol mhm. yàlla si mhm. kon tey ñu du kii la ñuy taxaw di ko kii bàyyiwuñ ko xel taxul ñu nekk si làmba ñun ñooy xool leneen. Eh. waaw moo leen bàyyiwul xel benn tëddul sax di xalaat. saa waay yow da may wax ngay jàppaat samay wax di jaaral samay wax rek yow dañ jaaral samay wax rek. tëddul di xalaat. yow dégg nga lu ma la wax dama ni la. yow li ngay wax nii toog ak baaba baaba wax la lii. baaba moom mi ngi xalaat prochain combat. prochain combat ah. ah. mais la baaba bu dalee suba la baaba jaxal di def mbokk yi euh, suba la baaba jaxal di def open press fële sa sam-sam suba la tamit la Ibu Afé di def open press moom itamit fële ca Midina euh, kenn ku ci nekk ku ci mën a àgg rek na nga àgg ci ñaari open press yi fu fu la sa jot may na nga ci jaay mais actuellement nii jënd ngeen jënd ngeen ñaata bloc ci combat bi actuellement ah jënd lu ma 2 millions bloc teg en attendant bu open press si jàllee ñu dem jëlewaat yeneen. mais 2 millions bloc yi ci reliquat am la wala ci fan la ko jëlee. ci xaalisam bopp xaalisam reliquat dara. bokkul ak supporters yi li ñuy jënd. bokkul ak supporters yi ñoom li ñu war a jënd. mais combat ba combat bi di ngeen di ngeen jënd ñaar ci bloc lépp lépp boo koy xool. mais presque ay 25 wala 30. bu 30 bloc bu soobee bi ku ko xam actuellement 10 10 bloc. promoteur bi xam na si dara. muy njëgu 2 millions kon yéen ñaar ñëpp kenn le maire Bamba Fall. jënd nañ monsieur le maire Bamba Fall. lamb ji sa lamb la ñoo ngi lay woo jëndal ñu 10 bloc boo ñu mënee may 15 car nga may ñu 15 car Cheikh Ahmed Tidiane Ba. banque agricole ñoo ngi lay woo Messi. Léo jëndal ñu 10 bloc may ñu 15 car soo ko mënee. ñoo ngi woo ñëpp bépp autorité bu nekk suñu secteur bi ñoo ngi lay woo Medina Fass Colobane Abdou Aziz Paye waaw. Abdou Aziz Paye moo drapeau dinañ ci wax léegi. drapeau Abdou Aziz Paye la. moom ci ñëw. jaaree fa nga tàggatoo parce que temps bi ñoo may wax ak man nii. temps bi dafa daf daf ma xooj te essayé bëggoon nañoo leen a wan combat Baba Jaxal bëggoon nañ leen a wan combat bi nga xam si ni moom moo doxoon tamit ci Ibu waaw léegi man balaa tàggoo eh, mais dañ leen dañuy mbokk yi dañuy jégalu rek di jégalu yéen ñi nga xam ni mm-hmm. yéen a toog seen i kër di ñu seetaan ñu ngi jégalu bu baax a baax temps bi temps bi moo ko mayewul waaye bëggoon nañu ñu gën a am large mais ñoo ngi ñoo ngi leen di kontaane bu baax a baax di leen ñaanal jàmm gannaaw bi ma la sante gërëm la ñaanal Ibu Afia yàlla suñu borom may ko jàmm mu ñëw ci combat boobu kàddu gu mujj gi lan waaw xanaa woo ñu ñuy jàppale. Mhm. di woo monsieur le maire Ahmadou Bamba Fall di ko wax làmb ji sa làmb la. Mhm. di woo Cheikh Ahmed Tidiane Ba. Mama Aw Dieng député ñoo ngi lay woo. Zano Bokande Gibratal ñoo ngi lay woo. Mika borom fan président Daaru Buy sa copain <laughs> ñoo ngi leen di woo si làmb ji Ibu Afia. El Diaz ñoo ngi lay woo Saliou Thiouz Colobane Bas Thioum Ba ñoo ngi lay woo Abdou Aziz Paye

mais voilà benn lamp lamp gannaaw bi ma la gërëmee sant la ah di gërëm zone bi nga jógee muy sam-sam di leen sant bu baax a baax di leen gërëm mm-hmm. parce que ñun fa lañ juddoo fa lañ yaroo fa lañ màggee fa lañ defee lépp di leen gërëm bu baax a baax di ñaan suñu borom defal leen jàmm yow gannaaw bi ma la gërëmee kàddu gu mujj gi lan la. waaw kàddu gu mujj mooy di wax autorité yi. Seydou Diallo Calki maa ngi lay woo ci ko woo ci bis bi nga jàppale ñaari mbir yëpp. Pape Kane Louga maa ngi lay woo Pape Kane. Louga Aziz Baye maa ngi lay di woo Ndiaga fi ngeen ko jàpp foofu la. parce que bàyyi la daaw daawee si jàpp. ñu wax ñëpp ñu dem def seen dool def ci combat mbër rek. ñun ñëw nañ pour tàllal loxo nga jàpp ci làmb ji. open press bi nag suba la terrain naataange. doo sam-sam un deux trois réew jàmbaar de teen bi naataange farba gëstu yi nekk foofu yëpp suba ñu ñëw en masse def suñu open press di wax nag waa sam-sam. ñun ñooy fekk ci waa naataange. bu ñu ñëwee fair play nañ ko dund ndax xam nga nit mbokkam te waa naataange ñun suñuy mbokk la. waa naataange ma leen wax gan ganale. bu ñëwee dana leen faral souvent nag souvent nag Baba Jaxal day def open press mais day yàq. Ah, ay problème yu bari moo fa am ba open press du mën a yegg quoi. booy ñoo amul sago ah, bu baax suba. jël nañ lépp bu soobee yàlla suba ku fa ñëw dañu xam ne ñu am nañ suñu matuwaay taxaw nañ si lépp. <laughs> sécurité bi man na lijjanti nañ lépp autorité yi fi ñu war a dem dem nañ fa. Hmm. dañ ñaan yàlla suba ñu ñëw open press bi def ko def bu rafet dem ñibbi waajal samedi ñëw jàpp affaire daanu. jërëjëf loo leen def daanu jërëjëf jërëjëf Lat Diop Lat Diop Lat Diop ñëwal ci programme bi nga xam si moom mooy am samedi diggante jax Jaxal ak Ibou Afia loolu sa liggéey la waaw Fallou ñu ngi lay nuyu bu baax di am contentement ci émission bi neex na di nuyu Alioune bu baax baax maa ngi koy nuyu bu baax di am contentement ndax temps xam mais teewul may nañu ñu mën a def émission bi si jàmm di ko ñaanal di ko wax suñu borom yokk ko rek pour gën a dem kaw kaw amin amin amin jàmbaar la ndaanaan la xale la ñu ngi lay nuyu bu baax di la kontaanee émission bu jaare yoon yow la jaajëf waaw di wax ci émission comme li ma lu ma wax rek lamb ji la treize la samedi la daanaka ñëw na ba pare ku ne xam na ni Baba Jaxal suba lay def open press am Ibou Afia tamit suba lay def open press am Medina ah. bi ñoo ngi woo ñëpp na ñëpp ñëw woo ñëpp presse bi. comme li rek ñu ñëw si foofu waaw bi Baba Jaxal tamit noonu teere naataange di woo ñëpp ñu ñëw foofu tamit couvrir événement bi. di wax ni mais am na sama benn mbër boo xam ne war ngeen ko jël nag ah. ah muy Amfou. Amfou incha allah dinañ ñëw dinañ ñëw suñu deuxième journée bi Amfou dina ci dugg bu soobee. ok waaw Bébéto mooy bëre premier combat bi digganteem ak saa yaraax la. Njaga bu Grand Dakar dina ci bëre ki nga xam ne mooy Papa Xariñ mooy deuxième combat bi. Ada Fass bu Jaxaay ci bëre Trompour bu Kër Massar. ki nga xam ne tamit përga doomu jaama bi dina ci bëree ki nga xam ne moom mooy ama bu yaraa eh, përga përga mel na mineur bi ki nga xam ne tamit sëll bu ndaw dina ci bëree ki nga xam ne mooy confiance sëll bu ndaw bu nekk kër Bay Fall confiance diggante Tiwaan Pël foofu moo ko moom dinañ ñëw tamit si Bousse 2 ak titulaire dinañ fa bëri ku ne xam na ne plateau ak sekk Ndaanaan plateau doomu ndakaar la doomu Fass la dina ci bëri sekk Ndaanaan doomu Yoof drapeau boobu moo nekk drapeau Seydina Omar Ka ancien maire Diamaguène Sicap Mbao hmm. Seydina Omar Ka moom oh, drapeau sama boobu moo nekk noonu hmm. imposé dina ci bëri ak Diop nga xam ne mooy drapeau ki nga xam ne mooy ancien basketteuse moo nga xam ne Khady Diop hmm. nga xam ne jël na trophée bu ne moom mooy ñoom imposé ak Diop mooy bëri seen drapeau Baba Jaxal Ibou Afia ñuy bëre drapeau ki nga xam ne mooy maire Abdou Aziz Pay comme di ko Bas waxee léegi rek démb def nañ remise drapeau bi Ibou Afia nag waroon na ñëw mais Baba ñëw na fa ay ay ay ndog moo taxoon Ibou Afia ñëwul foofu mais le treize da incha allah drapeau bu neex moo am yaaram aar ma na ko maa ngi si nuyu Bakary bu baax a baax di nuyu jéego équipe yaaram aar bi yëpp. jërëjëf maa ngi koy nuyu di bu Angleterre Xasaa Boscotir Massamba ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu Fallou Kani ñëpp di nuyu waa kër bu baax a baax Abbas maa ngi koy nuyu di nuyu ki nga xam ne mooy vieux di nuyu seen soxna yi bu baax a baax di nuyu suñu yaay jooju. jërëjëf jërëjëf jërëjëf Lat Diop waaw ñëpp rek Fallou temps bi temps bi Fallou dama koy nuyu ki nga xam ne mooy defar affiche yi nga xam ne mooy émission bi bay commencé suñu émission bi affiche bi waaw waaw kooku waaw waaw muy Malamine Prince maa ngi lay bu baax waaw Prince maa ngi koy nuyu bu baax dëkk Pikine Malamine sama jarbaat la jërëjëf jërëjëf jërëjëf Lat Diop di la nuyu baax a baax di gërëm di la ñaanal suñu borom defal la jàmm di nuyu PDG Mansour Ba mbokk yi ku ne xam na ne diggante Siteu euh, Modou Lo coow li mu ngi commencé e bari Siteu Balla gay coow li mu ngi commencé e bari mais lu ci mën a am rek euh, yàlla yàlla def jàmm ci boobu combat Siteu xaw ma ku muy jël Modou Lo wala Balla Gaye mbokk yi loolu débat boobu bi am na ñu koy laaj le treize euh, waaw tribune supporter bi yomb na bay bëgg a dee deux la mhm. tribune amateur quatre la loolu Saint-Louis di ñaan ñëpp samedi ñu teel a ñëw stade loolu dangeen koy loolu de bonus ngeen ko def mbokk yi Siteu euh, euh, Modou Lo coow li bari na waaye tamit ñoo ngi nuyu waa parcelle di nuyu waa jàmm gën lépp loolu dinañ ci dugg ci ñu waxtaan ci hmm. euh, semaine bii ñuy dugg ci loolu mooy waxtaanu seen émission fàqat ak yeneen i combat yoo xam ci ni am na ci arène nationale waaye mbokk yi lu ma la mën a wax Ibou Afia baaba Jaxal ñaari xale la yoo xam si ni ku ci nekk da nga am ginnaaw ku ci nekk da nga am mbooloo hmm. mais que le di leen ñaanal supporters yi ñu ñëw ci jàmm ñu dem ci jàmm nañu ñëw ci jàmm sañ sañse ba jekk ah muy sam-sam muy fi nga xam ne Médina yéen ñaan da ngeen ñëw ci jàmm bëri ci fulla ak fayda que le maire mbokk yi xalil suma xarit seeri Ngoné maa ngi lay nuyu bu baax a baax mbokkum day alaaji di la ñaanal sunu borom defal la jàmm seeri Ngoné maa ngi lay nuyu xalil bu baax a baax waaye tamit di nuyu xalil daas choose daas choose maa ngi lay nuyu bu baax a baax moom it suma xarit la ah koy nuyu bu baax a baax Tafa Faye maa ngi lay nuyu dangay ngay daw rek amoo arrêt ah di nuyu xalil borom kolobaan borom dàll yi maa ngi lay ñaanal sunu borom defal leen jàmm mbokk yi di gërëm réew mi di gërëm àdduna yéen ñi nga xam ne yéen taamu seen émission boobu fàqat di nuyu képp koo xam ne yaa ngi doon toog sa kër di suivre émission bi di nuyu suma xarit suma lépp muy sërif maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ñaanal sunu borom fa nga nekk mu jëlee la fa maa ngi la koy ñaanal bu baax a baax yow moom suma xarit nga ndog-ndog mënta ñàkk nag ci doomu aadama mais yow Baay Faal nga yow Baye Fall nga di la ñaanal suñu borom defal la jàmm foofu nga ne di nuyu waa chambre 3 bu baax a baax chambre 4 di leen nuyu di leen ñaanal suñu borom defal leen jàmm parce que man la ak ñoom dañ may béggee ma leen di béggee mbokk yi di leen jox dig daje beneen yoon ak leeral TV leeral point net jërë ngeen jëf